eh gars yi Lamine Camara démb après ba mu jëlee loolee di meilleur jeune joueur en ci année bi weesu naare non Marocain yee neex nag façon kii critique bu nañu ngi koy def nanguwuñu quoi nee nañ seen joueur boobu moo ko métti ba pare di sa salaam gaa yi béykat nuyu ko ci nekk seen tur seen sant man de ay saala sax jot naa ko ci naar yi naar yi ku ñu naan dañ loo bëgg ak ay mbokk ak yooyu ay Sénégal Maroc yu laay mukk dafa fekk ne ne amuñu seen intérêt jeex rek seen dafa fekk ne seen intérêt jeexul non mais démb de lu ne lu ne yàq nan moo ko de ci benn commentaire bu ma commentaire di féliciter Lamine Camara ci euh, publication CAF bi pour célébrer meilleur jeunes joueur bi yi di xoola ba may traduire seen arabe yi façon saaka bu ne mu jigi sama yenn mbokk sénégalais fa ñëw di ma jàppale mais façon critique bu ne ñu ngi koy def di ay sàcc làkk Abdé moo ko mérité mooy booy joueur bi nekkoon Barça te suuxoon doon nekk ci banc bi instant Betis Séville la ne titulaire sax defu ko gone googu demi-finale coupe du monde te titulaireul match yooyu yëpp yamaatuñu foofu U23 coupe d'Afrique boobee la jël doonoon capitaine Lamine Camara jël coupe d'Afrique U20 jël CHAN bi ñaari compétition yëpp meilleur meilleur joueur la ci jël ah yamaatuñu foofu ñu sélectionné équipe nationale Sénégal a muy pourvu di wane boppam Metz mu ñëw rek intégré Ana Abdé gëlëm na réer na kenn xamatul fu mu nekk tamit nan bàyyi ñi def waaye ñii danoo neex Osimhen moom lañ jox ballon d'or bi démb après ba ko Sadio Mané doublé Osimhen moom moo yël boobu jur na coow naaru algérien yaa ngi kaas que ni loolu Mahrez moo ko mérité ci noonu nag maa ngi xaat ci commentaire nan ngeen ko gisee ba xam ànd ngeen ci ou pas en tout cas Mahrez jël na trophée yu bëri mais it Osimhen lam jël daaw ren ak lam def daaw macha allah. mu ngi noonee jàmm ci yéen gars yi képp koo xam ne abonné goo suma chaîne YouTube duggal suma bio TikTok nga bës ko YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche mu seetaan di seetaan vidéo mu jeex a ci yeneen vidéo merci à sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo ñoo far. avec mon grand ci waaw. mais Bamada. walaay lan nga wax. walaay ndeysaan. <laughs> walaay ndeysaan kese. <laughs> donc continue quoi. ah. ci daal la nga

وأيد لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا القوم اتخذوا seen yaay dañ kontaan vraiment loolu mooy leen bu baax baax yaa tuur macha allah. yaa ngi lay yàlla day sinuwaat. daf leen day gëj a dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran